ne sunu sëriñ moo toj la ba te ngi daaru kenn la maa fi tuut ci jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la. mbokk yi ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel euh, Ndayane Vision euh, ñi ngi fi ànd ak yéen itam ci màggal Daaru Muxti 2019 euh, comme ni ñu leen ko doon digtale itam ñi ngi fii ci kër Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Modou Mbacke moom Serigne Mor Diabou ñu ñëw comme ni ñu ko fekkee ci kër kilifa yëpp taalibe yi ziar ànd ak moom màggal gi. mbokk yi euh, ki nga xam ne tey jii nag moom la ñu ñëw ci këram euh, muy euh, Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Mour Diabou moom Serigne Moudou Mbacke moom Serigne Mour Diabou maamam Serigne Mour Diabou comme ni ma ko waxoon gis nañu ku ne ñëw ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba waaye koo xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo la tànnal boppam loolu yaakaar naa ne yombul ndax xam ngeen ni juram ku naan sëñ Mbacke Mati koo xam ne dafa wóolalante woon la ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba amal ngan goo xam ne daana ko defal saa su ne mu ko defal wax na ne ci ngan gu mujj gi euh, bi mu ko gane jee euh, sëriñ bi euh, bi mu fa nee bay bay bay dellu sëriñ Mbàkke mati di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko gunge ni ko nit ñi mag ñi di waxee bi mu nee ba si yàgg sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba xamal ko ne ko mën ngaa dellu dem ci njaboot ga sëriñ Mbàkke mati ne ko damaa gis ci loo xam ne topp la moo ma gënal sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba wax ko ne ko boo demee nga indil ma mor jë bu ma fa ne te moodu xari bu ma tee indi na ngeen ma ko indil ñu jël Serigne Mor bu euh, jox ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu nekk fa liggéey fa liggéey bu rëy Serigne Touba jël ko boole koog maam Thierno Birahim mi nga xam ne jii moom la nekk ci bisam di ko ko mu ñëw ci Darou Mokhti wax na ne 1912 avant ñuy sant daaru Mokhti Serigne Mor Diabou moo fi njëkk a ñëw tibb fi ñett suuf yóbbul ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba wax ne foofu baax na. liggéey fii Darou Mokhti liggéey boo xam ne yaakaar naa ne waa Darou Mokhti euh, dootuñu ko fàtte ba kenn ku ne xam na ne Serigne Mor moo nekkoon loxol ndeyjooru maam Thierno Birahim doxoon maam Thierno euh, diggante maam Thierno Birahim ak ak nasaraan si ndax Daaru Muti euh, ni mu mel tey nañ ko sante bu baax sëñ moor Diabou ndax liggéey na ci liggéey bu am solo ndax euh, Daaru Muti bëggoon nañ koo jël boole ko ci Ndoyeen sëriñ moor Diabou moo tax loolu amul sëriñ Mor Diabou forage bi nga xam ne teen bi nga xam ne moo nekkoon ci Aynu machine ba nga xam ne moo daan manque ndox mi pour nit ñi di ko jëfandikoo sëriñ moor Diabou moo ko fa moo ko fa defoon tey jii nag ñu ñëw ci ki nga xam ne moo ko fi nekkal muy Serigne Mamour Mbacke di xalifab Serigne Moudou Mbacke euh, euh, di di di doom Serigne Mor Diabou nekkaale en même temps xalifab Serigne Mor Diabou ñu seet si ko tey jii ànd ak Ndayane euh, Vision kon sëñ bi ginnaaw bu la nuyoo ziar la ñu ñëw ànd ak Ndayane Vision ngir ziar si ak lan nga ñu mën a doole ci bis bi sëñ bi. sëriñ bi alhamdulilah ñu yàlla bu baax ndax bis bari na te bis yi yàlla gërëm ku ci yàlla boole ci boobu bis war ngaa sant yàlla bu baax. te bis bii day bis nitug yàlla te nitug yàlla alalam lépp la ñëpp la daje bi daje bi lislaam rek la ndax dëkk bi jurut baamtuwaat ndax wax nga li ci nekkoon ba noppi sëriñ Tuubaa moo toog ci coobare kay bakkanam bind leetar maam Cerno ne ko demal nga sañc ab dëkk tudde ko daalul Muxti booba ñu ngi Mbàkke Kajoor bi yàlla dogalee mu ne ko dangay xëy boo xëyee ba yor yor foo yandu foo fay dëkk ba am na genn guy goo xam ne mi ngi ci saalumu jumaa ji dafa dee léegi am na safar bu ñu daa wax Tuubaa fay mu woon ci këram sëñ Mor Diop fekk na ñëw na fii sëñ bi yebal na ko ñëw na fii laata ñu koy sanc waaye nag ba ñuy ñëwal seen bopp nga xam ne ñu jóge Mbàkke Kajoor bi ñëw ba ñu xëyee Mbàkke Kajoor guy googu ba ñu fa ñëwee ñu fa ñëw waxtu digg ba cëg fekk fa ay siyaan diggam ak fii jumaa ji nekk bi ñu ñëwee fekk fi siyaan ñu fekk ay pël muy kocc pël ba sëñ bi ne ko léegi sëñ war na ko léegi fii mooy fan mu ne ko fii mooy toogi jag mun ne waaw daa déggul wolof waaye fii mooy toog jag fii la sëñ mu ne ko fii mooy toogi jag mu ne li sëñ bi waxoon nag dëgg la fii mooy toog jag ñu yendu ci guy ga ba ca ngoon ñëw fanaan fii biir dat bi nekk ak yu rafet nekkoon ñu jëli reer ba Mbàkke Kajoor indi ko muy 1911 bi yàlla dogalee ñu xool ko mu 1912 bi ñu koy gor si ndax 1911 la ko sëñ Mor setti ne ko nag si ko gor mu ne ko lu tax mu ne ko amul ndox dafa tàng moo doon programme moo doon def programme sëñ Mor Jóob moom sa programme la maam Thierno lu mas a doon lu mas a doon rek ci programme la woon mu ne kon baax na ñu toog ba nga xam ne bay nañ ba bayaat ba mbay mi noppi dégg yi mu ne sa mu ne maam Cerno mën nañoo dem gori tool gori mu ne ko tax mën nañ ko mu ne ko àll ba tooy na ndox ay ndabi ndox am nañ ndox nit ña mën nañoo naan nga xam ne dañ ko gor ci catal nawet bi booba dégg yaa ngi taa jéqeguñ góobaguñ waaye dañoo bay ba noppi li ñuy wax kolog ñëw gor garab yëpp wacc ko mu tëdd ñu bàyyi ko ba noppi ci ba cooroon ñu ñëw taal àll bi garab yi wow ñax mi wow ñu taal àll bi muy 1912 ñëw sanc ko bi ñëwee sanc ko ba ànd mbooloo bi leen sëñ Tuubaa lettre bi mu bind dafa wax maam Cerno ne ko demal nga sanc dëkk ba tudde ko Daarul Muuti yow ak Mor Jabu mii bu ngeen demee na nga yor baatin ba sëñ Mor Jabu na yor baatin na yor saayir bu ngeen demee Mor mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo demee da ngay ñàkk Cerno mii nit nag lu muy ñàkk day gën a ñàkk day gën a wex loolu te da cay tax sëñ Tuubaa di wax de mu ne Mor nag ma ñàggal Cerno mii nit nag la ngay ñang nag da koy gën a ñàkkasa da danga cay tax sëñ Tuubaa wax ci làmmiñam de keroog bañ àndee ñëw fi ci Daaru Muxti gii fii brigade bi nekk war naa mat 4 kilomètres fii ba fii nu dëkk nii war mooy tool moo Mor Jëbu ñaari gor amu fi cerno jur sax ku ne daa demal daara jox la ko waaye amu fi lew war nañ fi ñaari lew def Mor Jëbu go waaye ñaari lew yi beneen sëñ Tuubaa boole mu dikkee maam cerno ku gore la sédd na ko piir ndax goral jëm nii la ko wax gor jëm nii di gor di góor goram ba tey moo fiy dox ba fi na bi mi sama loxo bi maa ngi fee lu war a mat ñeenti kilomètre nangam ci suuf ba li ñu dëkk ci la ba li féete nii amul lu ko dog mat na ñeenti kilomètre lépp loo xamante ni boole woon nañu ko ñoom ñaar maam cor na jox na ko ci ba jox ko ci ëpp leen boole sëñ Mor Diop jox na ko boppam ba boole wutul ci ñoom àndi wu rafet la ñu àndi muy suñuy wayjur àndi woon na kon nag dëkk bii sëñ Tuubaa wax ci làmmiñam de mu ne ko bañ a dem àjjana bul fa dee bu ñu la fa suul ku fa dee ku nekk danga nga dem àjjana force borom daal mos masaa toog fi benn pël bu xaw a soxor ñaan ba ne man sawar bu noonu ci xottu gerte danaa ci mos ndax bon borom daal toog ci biti seen pël ba muy dox mu ne man di dama am ak jaaxle ndax pël bi di lim def ci lu bon fi mu toll ci aas te xam ne ni mu toll te nangutu génn dëkk bi te dana fi dee te fii du fi dee dem sawara ay bokkam am na yu fi des xam naa pël bi ay bokkam xaw xam naa ay bokkam fii la gonte ay garabam jeex mu ne wuti garab xëy gont yendu jowaat xëyaat xëy yendu xombal gont wa ba mu waree fas jàpp ko bañantoo dafa daane ba bokkut àll bi dafa ko daane mu di ko wat ba mu dee fas wa daa daw ba bu nga deñ ay raba ko lekk xamuñu góor la xamuñu jigéen xam nañ daal yax yi lii yax yi nit la fas wa ba mu fekkee booba jamono bokkut ak léegi ba mu fekkee ci barab bañ demee dem ba topp ba xam ne boobu jamono adduna si ubbi ko nii buñ demee dem ba fas ñu xam ne fa mu dëkk dinañ xam ne diwoo ko moomoon waaye nit ko ko ba mu génnee xomal daal la dee loolu ay wax la kon nag fii nag képp ku xeeñ sëñ Tuubaa ba dugg fi am nga ngërëmal sëñ Tuubaa lañ fi doon tooge nag lépp ci ndigalu yàlla ak sëñ Tuubaa nag di ko fi wut képp ku fi ñëw ko am yéene ñëw lu fi waaye jëlee ci lu baax yàlla na ko yàlla bokkale boole ñëpp ñëpp amuy yiw kuy am jafe-jafe yàlla nga tàggoo moom kuy wut aw yiw yàlla nga ko am képp koo xam ne danga nga jafe-jafe bu man a doon yàlla suñu borom tàggaloon te itam yàlla teg la ci yoon saraat mu sax ba la tàggaleeg moom mukk jëlee ci lu neexul yàlla ba doo ko gis mukk yàlla na ko yàlla defal léegi nag dama fee toog ak samay kilifa moo tax ndax ñii waa kër sëñ Coor Nday Sa lañ ci gàttal lu métti kii suñu waajur la ñi si ñëpp ay bokk la ñii ñëpp ay bokk la ñii sama jigéen la ñii suñu bàyyi la sunu taalibi la ndax ma yor kii suñu mbokkum taalibi la ci gàtt waaw ñu nga jénga waa kër sëñ nag moom ak ñëpp benn benn moom waa Mbàkke benn façon ñii ñëpp nag benn façon benn bopp dong lañ taalibi ci bët ëpp itam yii ci biti yi teg yëpp it ñu ma fekkoon sama waajur la ak ñu ci dolli jur rek la yéen ñi nga xam ne da yéene dox di wër nag di leeral nag liñ fiy def di ko jotte ba ñëpp yëg ko yàlla na ngeen yokk ba yëg ko te kenn ku ci nekk ku ne yàlla nga am sa bopp yu ëpp yàlla na yàgg te yàlla na yàlla barke suñu liggéey yàlla na yàlla may seen yiw mu ngi sant gërëm kon bàyyi fallu kon def ci ay kàddu ñaan ok ok jërëjëf sañ bi kàddu yu am na solo lool wax dëgg yàlla ku ko dégg rek xam ne mbir mi lu yàgg la ñu am na lu bari lu ñu ci mën a seere ndax ku ñu wax sëñ Njaga Njaay daan nañ ci nettal yu bari ndax sëriñ Tuubaa ci boppam it moo ko boole am cër ak sëñ Cornay sax sëñ cornage it kenn ku ne xam na ni mu bëggoon borom daaru borom daaru ni mu ko fonk woon ba yëkkatinoo doomam jox ko muy soxna moom yi sëñ Mor jub ak sëñ cornage it yàlla suñu borom boole leen boole lool ba nga xam ne sëñ cornage fii la daan dal waak sëñ ars waak sëñ yëpp fii lañ daan dal sëñ Mbay Mbàkke sëñ gaawaan sëñ moroma jigéen ñëpp mébét gépp ba ci sëriñ Mbàkke moroma jigéen ci ab taawam ñi ay rakam nañ ñëpp fii lañ ngir di feddali loola ndax loolu dafa yàgg loolu nag loolu la ñuy feddali ba nëgëni si kon sant bu baax saa suñ fi ñëwee wax dëgg yàlla euh, liñ fi liñ fi liñ fi doon wut muy ak bokk ak lislaam fekk nañ ko fi kon yàlla suñu borom dëggal sa taxawaay bu baax gën la fee yàggal yàggal fi njaboot gi yëpp sant nañ bu baax suñ mot jëb moom kenn ku ne xam na ko ci taxawaayam ak diggante ak borom daaru taxawaayam diggante ak bokk ak pas-pas pas-pas rek laa amoon ndax boo ko Sëriñ Tuubaa booleeg suñ borom daaru daa wéyal loola wana pas-pas bu wér borom daaru téye ko ngir pas-pasam ndax mag ñi daw ñu ànd ak kenn dañu ànd kenn ci pas-pas waaye dafa ànd moom ci bokk ak utali bu noppi pas-pasam mu téye ko kon loolu mooy dox ba dëgg ni si kon ne sunu sëriñ loo to jabalta mi ngi daaru kenn la maa fi tuuti ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la